juróom-ñetti waxtu di 8 heures teg fanweeri simili imaam Ahmadou Mactar Kanté sunu gan tey dellu si gannaaw waxtaan wi ci kalamay nasaraan imaam asalaamaaleykum ñu ngi lay ziar di la nuyu. waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu maa ngi lay ziar di nuyu ñëpp ñi xam ne ñu ngi déglu euh, réew ñu am mbégte lool dalal la tey ci waxtaan wi ay waxtu des euh, ngir ñu dugg ci weeru koor ëllëg France yeneen réew di tàmbali waaye Sénégal imaam dara leeragu fi euh, ci tàmbali gi ñu bari nag ba tey wekku ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi te mooy séentu ba gis am ñeneen nag ñu jàpp ne xëy na warees naa mën a sukkandiku ci calcul scientifique yaak yu ni mel naa jàpp ne yegg si nañu jamono joo xam ne jullit ñi danoo war a bàyyi xel loola di calcul scientifique yi ngir mën a xëy na tàmbali weeru koor ak jeexal ka waaw waaw weesu nañ ko sax xam nga da nga ne nax yegg si nañ ci jamono ji hmm. dama naan weesu nañ sax jamono bu ñu war a jëfandikoo euh, calcul parce que am na ay dëkk yoo xam ne ñu koy jëfandikoo hmm. euh, bu yàgg loolu tam dañ koy fàtte heureusement nga posé ma question bi ngir ma fàttali ñiy déglu ñu na dëkk yoo xam ne Turquie depuis les années quatre-vingt soixante-dix-huit euh, dañuy jëfandikoo calcul astronomique Libye bu Kadhafi dañ doon jëfandikoo calcul astronomique bu conjonction bi jotee rek avant fajar ñu jàpp mooy premier jour euh, je crois que actuellement Malaisie euh, ak euh, une partie des États-Unis en Europe gis nga léegi France voilà dañuy génnee seen communiqué wax bisu tàmbali koor ak bisu korité xam nga xaaruñu sax <laughs> weeru koor bi donc voilà kon kay soxna si bul ne sax ndax jot na nel kay Sénégal ñoo tardé ci wàll boobu Euh, bu ko defee kon nag léegi euh, euh, jot na te nag dafa jot sëkk ñu ñu ñu jox cër bi lislaam jox xam-xam ci wàllu yëpp dama ne la boo génnee ci alquran hmm. aaya yi nga xam ne daf ñuy junj ñu gëstu lu jëm ci jaww ji ñu koy wax astronomie lu jëm ci astre lu jëm ci embryologie lu jëm ci affaire géologie géographie Euh, affaire océan yi affaire vent yi affaire taw euh, ma ne la boo ci génnee yooyu la ciy des du bari te loolu yëpp ay aaya la aaya mooy kawteef mooy loo xam ne dañ ci war a xalaat euh, di ko di ko di ko jàngat di xam les lois de fonctionnement de la nature de la création am na ay temps jullit yi ñoo rawoon ñëpp ci loolu tey jii li ñuy wax ay algèbre yu ci bëree bëri jullit yi ñoo ko avancé loon ba tey li ñuy wax tey jii numérique ak calcul yëpp foofu la bàyyi ko woon te Euh, alquran moo taxoon ñu sawar ci loolu parce que arab yi lu ñu xamoon naan seen meew nag lañ leen xamee woon euh, fecc seen fecc dem tëdd seen tant donc ba ñu songee xam-xam mooy alquran ñëwee na leen xubbi ubbi leen seen bët ci li yàlla bind kon nag léegi boo demee ci alquran bu ñu jëmee ci astronomie bi ngay wax nii mais ay alquran yi ciy wax dafa bari li taalamu adada sinana wal wal xisaab ndax ngeen mën a euh, xam at yi te ngeen mën a calculer alquran wax ne borom bi nee na maa tëddalee nii maa tëralee jant bi ak bi pour ngeen mën a calculer ay nit ñëw taxaw naan la waaw mais calcul boobu euh, waruñ koo def waaye mën nañ koo def ci julli ñuy calculer jant bi ci julli euh, waaye buñ calculer weer bi pour weeru koor euh, nga xam ni kon am na lu ñu war a am na lu ñu war a lijjanti am na lu ñu war a joyanti. Hmm. kon njuumte la ba tey jàpp ne feeg gisuñu warunoo gëm. dellu si ci question bi. ma ndax njuumte la kon ñu jàpp ne feeg gisuñu weer bi rek warunoo gëm ni feeñ na. waaw kay njuumte la njuumte de bonne fois njuumte la ci biir xam-xam parce que xam nga lu tax dafa lu ñuy wax euh, jël euh, texte bi aay wala xadis euh, dañ koy dégg mm. dañ koy dégg dégg boobu moo tax fiq am xam nga fiq mooy compréhension fiq ci wolof mooy dégg kon texte am na dégg am na bu dul loolu am na ay texte ci alquran tey yoo xam ne xadis yoo xam ne tey ma ne la boo amul dégg demoo ci téere yi boroom xam-xam yi wax la nii lañ ko war a déggee mën naa la wax ni mënoo dund sa diine. da ngay jàpp bi li ñuy wax li noonu. Mhm. ma jox la benn exemple boo ma ko mayee eh, soxna si rapidement. dama ci alquran. Mhm. di nga gis am na aaya alquran buy wax waylul lil musallin aaya la. Mhm. waylul lil musallin mooy mooy toskare safara ñeel na ñiy julli loolu aaya la c'est un verset complet. aaya la mais léegi fan nga jëm ak aaya boobu. aaya boobu pour munaafiqoon yi la pour naafiq yi julli julli loolu rek. mais ñu ngi julli quand mais seen julli boobu du leen jëmee fenn fu dul safara léegi est-ce que da jël aaya boobu nga ne ah l'enfer euh, pour euh, ceux qui loolu dana yéeme di. Mm-hmm. kon nañu bàyyi julli. Mm-hmm. pourtant aaya la mais da koy booleeg aaya yi ko jiitu. Mm-hmm. et cetera et pour xam ne li fi jublu fii mooy naafeq yi julli julli lu. ak ak contexte ba surtout. ak contexte ba. lu jëm ci astronomie kon tam noonu la yenn sax lépp lu mu wax am na ci loo xam ni amul laam-laamee ci mbiru jaamu yàlla. nii la nii la nii la mais gis nga lu jëm ci affaire ay moyen lu jëm ci affaire ay euh, nu ñuy jëfandikoo ah ak yu mel noonu borom xam-xam yi dañ koy dugal ci contexte bi loolu moo tax am na yu bëri yom sa sam doon jëfandikoo du question ne l'islam moo wax loolu waaye jamonoom lool moo fa amoon mu koy jëfandikoo xool yenn sa yëre yam doon sol mm. mooy mooy tailleur yooyu ca jamonoom yéen doon ñëw loolu la doon sol mm. léegi man soo ma ne tam naa taraxlaayu comme temps yi jamono jooju parce que bi dafa wax ak xeetam ci xadis mën leen ñun ñi Euh, dañoo kii ay analphabètes lañu parce que ñun mënuñu bind mënuñu euh, calcul astronomique. Hmm. mais loolu jublu ci woon ne ba faw duñ ko mën. Hmm. moo tax borom xam-xam bu mag Ahmad Shakir ci daal ne dañoo juum foofu ñi wax ne kon yonent bi dafa tere jëfandikoo calcul dañoo a wax ni kon tam yonent bi tere fa ne tere na jëfandikoo bind. parce que dafa ne ñun duñu bind duñu calcul te pourtant ban jullit moo sañ a wax ne duñu bind alquran dañ ko bind def ko imprimerie. Hmm. pour ñu mën cee jot kon li mu waxoon mooy ñu mën ñu bëri ci ñun mënuñu calcul mënuñu bind. kon nag léegi def leen li ngeen man mooy séntu léegi nag bu ñu demee ba mën a calculer te alquran tudd calcul xisaab xisaab xisaab ma wax ko ñetti yoon kon kay pour lu ñu war a mën a jëriñoo la kon léegi il faut ñu régler njuumte boobu ci déggin ñu joyanti ko ñu am jàmm ñu respecte calcul astronomique. Mhm. ñu mën a am calendrier benn coow dootul am. Mhm. wekku ci séentu ba gis googa indi na xaajaloo ci réew mi euh, justement ndax ren yaakaar nga mu am wuuteeg yeneen at yi ginnaaw bi ci ministre de l' dugalee loxoom. waaw loo loo loolu munul tere wute am. mënul ko hmm. tere parce que euh, ministre de l' intérieur mënul imposer dara euh, souvent tam nit ñi dañ koy fàtte mais CONACOC c' est pas une association nationale au sens euh, strict du terme comme ni ñu koy waxe ah lu national mooy lu état bi mettre en place CONACOC c' est une association privée qui a ses textes et tout ministre mënul leen imposer dara c' est une organisation religieuse privée voilà kon nag ministre bi au contraire julli di ñoo ñàkk juboo Euh, saraxu nga baal ma wax bi. Mhm. dem ci moom ne ko dimbali ñu nga nga trouver ñu solution mu ne leen kaay la waxtaan mënu ko bañ parce qu'il assure la tutelle euh, même si fekkee ni état laïque la mais la preuve mooy xool ni fa génnee ñetti kilifa ñetti kilifa nan la mën a yilifandoo euh, le comité provisoire kan mooy dogal bu ñu bu ñu wuteeg seen biir ñoom ñett kuy kuy problème bi donc <laughs> on n'est pas encore sorti de l'ornière ni ñu koy waxee ci tubaab. Mm. mais ala kulli xaal kon wuute euh, loolu mënu ko tere parce que non seulement ñetti président yooyu mën nañ génn ku nekk génn wax dara euh, wala am ñu la woo ne gis naa weer bi nga ne ko d'accord euh, keneen ki si ñoom ne man am na ko ma woo feneen wax ne gisu ko kon nuñ koy régler première chose deuxième chose mooy que am na yeneen commission actuellement ci réew mi boo demee tey ci gox yi këru diine yi am nañ seen i commission bopp ak tamit la commission des musulmans du du Sénégal nga xam ne ñoom dañ ne ay internationalistes lañ fu ñu ko dégg dañuy wor kon c'est pas évident que euh, ñu ñu ñu worandoo mais au moins am na benn chance bu ñu am mooy tey la ñuy maanaam commission yëpp tey ci Sénégal. Hmm. la ñuy séentu. léegi nag ñu xool euh, qu'est-ce que ça va donner après timis euh, weer bi dina def trente minutes mais normalement mënuñ ko gis à l'œil nu maintenant on va voir ce que ça va donner. loolu mm-hmm. ndax euh, jàppoon ni war naa tax ñu jël euh, association sénégalaise pour la promotion de l' astronomie euh, lëkkale leen ak ñiy saytu wàllu séntu weer ci Sénégal yëpp yi gën a. waaw waaw gis nga dafa am lu ñuy wax benn qaida fiqhiya mooy règle de du droit islamique gis nga bu ñu doon teg yëpp yi foofu rek. Mm-hmm. benn coow du am li coow lu yëpp daraja ak ñàkk gëstu mbir mi ak ñàkk xam jumtuwaayu jamono fu ñu toll. Euh, loolu rek moo indi coow li mais bu ñu ko tegoon rek ci ci ci charia ak les règles du droit islamique benn problème du am solution day am parce que euh, tey jii euh, alquran par exemple règle du droit islamique daf ñuy wax ne loo xam ne la wareef la fa ngay jaar ba def ko loolu day doon wareef kon léegi li nga xam ne wareef la mooy ñu xam weer bi kañ lay commencer ak kañ lay jeex nan la ñuy fexee ba xam ko nag kon tam loolu day doon wareef ñu trouver les solutions techniques mm. léegi nag kon ASPA mën na indi appui technique du ASPA mooy taxaw naan woor leen wala bu leen woor. Mhm. mais ASPA mën na wax ne euh, conjonction bi heure sangam la coucher du soleil heure sangam la coucher de la lune heure sangam la euh, mën nañ ko gis à l'œil nu ou loolu mu nekk un appui euh, scientifique boo xam ne jullit yi dañ koy soxla pour mën a régler problème bi définitivement. sànq yaa ngi wax ni jot ngaa sax jéem a dugal euh, mbirum science googa ci CONACOC gi nga xam ni euh, ndem si yàlla Mourchid Iyane Thiam moo ko jiite woon ñuy del di ko ñaanal. waaw jéemoon naa ko pour la première fois man maa dem ba kër Mourchid Iyane Thiam ne ko dama la bëgg a proposer ñu revoir le fonctionnement de la CONACOC bokk ma ci ñi nga xam ne dañuy taxaw fële rek di sànni xeer mu ne ma loo proposé ma ne ko ñu def benn séminaire technique yaatal ko euh, invité ci en particulier Euh, ASPA affaire astronomie ak sax ANACIM nga xam ne affaire météo ñoom heure coucher du soleil mën nañ la wax ci Sénégal yëpp laa où le sera dégagé foo xam ni euh, dana féex euh, nit mën a gis ak bët mu ne maa loolu de rafetu naa ko ñu invité leen yëpp ñu def un premier séminaire il y a trois ou quatre ou cinq ans soixante dix pour cent xaalisu financement bi man maa ko wutoon fii ci paa yi nekk ak man fii ci jàkk ci ñu rafetlu ko loolu def ay contribution soixante pour cent kon nag dërëm dërëm laa léegi nag euh, bi ñu defee séminaire boobu maa ngi rappelé ma dem ba kër Iba Der ne ko da ngay ñëw parce que vous êtes des intellectuels musulmans seen diine ñor na leen ñëw leen ci lii ñoo ñëpp ñëw bi ñu defee séminaire boobu ñu am de bons résultats ñu war a def un deuxième séminaire de refondation de la CONACOC maanaam nag léegi ubbi ko ñëpp ñëw ñu boole ki tamit science euh, mu nekk bureau bu normal euh, am méthode bu rigoureuse et cetera ah foofu nag Mourchid Iyane Thiam rahmatullahi alayhi mi ngi ci bàmmeelam ci la ma woo nag ne ma loolu man d'accorduma ci ku bëgg daal nga ñëw bokk ci Conacoम ñun lu ñuy liggéeyee nga liggéeyee noonu euh, ku bëggul nga def sa yëfu bopp mais du ma nangu ñuy refondé loolu euh, il fallait il fallait ma apporter témoignage boobu aussi mm-hmm. chance mm-hmm. laaj ma ko ma joxe boobu tontu ci sa rajo mm-hmm. mais noonu la demee boobu laa jàpp sama ñàmbur euh, dem di ko ne samay gëstu mais kon il est temps aujourd'hui équipe bu bees bi ci li ci jot a dégg ñoom trois tendances yëpp nee ñoom reconnaître nañu que ñoom ñu ngi tukki di dem ci pays arabes yi fépp noonu gis nañ ne calcul astronomique boobu fi mu nekk nii kenn mënu koo soobantal mm-hmm. mais c' est une bonne avancée alhamdulilah kon nag léegi ASPA nañ leen gën a féexal ñu mën a apporter leur euh, appui technique ASPA mm-hmm. xëccoowul dara ci commission bi c' est mm-hmm. juste un appui technique te gis nañu dugal nañ seen loxo bu baax a baax ci mbirum weer wi waaw imaam wuute yu ni mel islam ban gis-gis la ci am surtout ci lu mel ni ay woor ak tabaskeek euh, yooyu nga xam ni dafa am solo lool ci diine ji. ah day nangu ne nit Euh, ay ay ay wute du ñàkk ci mbiru doomu aadama du rek ci l'islam du rek ci jullit yi xoolal diine yi am nañu ay guerre du jeex du xaaj am nañ ay wute xoolal par exemple euh, christianisme am na ay temps dañuy faat borom xam-xam yi Galilée bu na ne suuf si di tourné euh, prêtre ne faat leen ko et cetera et cetera l'islam noonu yeneen diine noonu donc boo demee hindu yi ñu naan la ay caste euh, les intouchables naa teg ko ci lan ay seen benn yàlla moo ñu ne nangam nangam donc nit moo mel noonu du affaire jullit euh, léegi damay damay ragal des fois sax li may wax gars yi des fois bu bu jullit bu xiif ba lekk sax ñu ne ñu ne li mu nekk jullit moo tax mu foqale man leen non lekk kay yëfu nit la rek donc euh, loolu c'est c'est c'est c'est c'est normal libre arbitre nit moo mel noonu quoi mm. léegi nag mais li am solo mooy ñu tënku ci charia justement charia dafa ñëw jox ñu ay principe yoo xam ni euh, bu ñu dépassionné affaire bi comme ni ma la wax sax. Mhm. bañ a dugal ay daraja ay nangam nangam. te xam tamit xam-xam dañ ko war a jëriñoo. Euh, bu ko defee kon ñu teg fële li nga xam ni mooy indi wute yoo xam ni waruñ ci wute parce que tey euh, woorandoo tabaskandoo et cetera mooy yoo xam ni du affaire tarixa du affaire ibaadu du affaire xaw ma nangam nangam. weer bi yàllaa ko bind pour ñu mën ko natt justement ak jant bi pour ñu mën ko natt di jaamu yàlla kon loolu waruñ cee wute bu ñu toogee waxtaanee ko ci yoon. Euh, wuute waru ci am tey ji man su ma duggee ci benn jàkka damay ñëw rek kàbbat ci ginnaaw imam ba du ma jéem a bi ndax séeréer la wala est-ce que ban tarix la ne et cetera parce que sañuma euh, remettre en cause le fait que benn communauté organisé wu ci benn mosquée teg benn imam donc am na yoo xam ne du question ay parparloo ay ruq-ruqaat donc dafa laaj rek ñu waxtaanee ko teg ko ci yoon solution am na. Hmm. alors imam ñu dikk nag ci weer wi ci boppam euh, koor lan la tekki ci jullit. waaw moom lu màgg la amul leneen lu ko mën a euh, remplacer amul euh, am na xéwal yu ci yàlla def euh, yoo xam ni ci lu feeñ ak lu nëbbu yoo xam ni beneen jaamu yàlla boo mën a def mënul jël place am loolu c'est très très très important bu ko defee koor dafa nekk loo xam ni xam nga ni mooy weer bi nga xam ni ci la alquran wàcc koor mooy weer bi nga xam ni fukki guddi yi mujj ci weer boobu mooy guddi yi gën ci weeru ci atu jullit Euh, y compris rawatina laylatul qadr boobu nga xam ni moo euh, moo ëpp euh, tuyaaba ci jaamu yàlla junni weer maanaam quatre-vingt-trois ans ak lu ci ku ko doon jaamu yàlla sans ñu may la ko ci benn guddi boobu ci weeru koor la nekk weeru koor ci la yàlla may julli ndam bu ñuy wax badar julli di nekk trois cent treize ñi la nekk mille et yàlla may leen dam pour wan leen ni et cetera mm-hmm. koor tamit ci la borom bi di nangu sunuy ñaan parce que ki woor bay dog bu ñaanee borom bi nangu ndax xaal bi mu toll ah euh, koor tamit ci la borom bi subxanahu wa taala ñu baal suñu bakkaar ne képp kuy naafile guddi gi borom bi dana la baal euh, koor tamit ci la ñuy saraxe saraxe boo xam ne tamit day ànd ak barke képp koo jox lu mu ndogoo euh, li ci nekk ci tuyaaba sa sala wax na ni koor daal yàlla nee na sama yëf la maa xam nu ma koy fayee. kon loolu daf ko jox benn payoor particulier kon nag koor loolu la léegi nag sur le plan finalité koor ci boppam du xiif ak mar dàq koor fi jaar na fi mais <coughs> Euh, not sa bànneexu bakkan parce que soxna si lépp loo xam nit daf koo yàq ci kaw suuf te léegi yàq bari na xoola tey la crise écologique hmm. xool ñu ko posé ne àddina bi xoola tey guerre yi xoola tey ah xoola tey ni ñu yàq jikko koy ah loolu yëpp lan la bànneexu bakkan kese la du leneen te bànneexu bakkan boobu nag fekk nit ki mi ngi koy not di xeex ak moom dana mën a nekk nit ku baax parce que boobaa yàlla rek lay déglu dootul déglu bànneexu bakkanam koor nag day ñëw ne lekk na la ñëwal nga ne ko lekkuma naan nga nekkoon ko naanuma nangam nangam pour ko ni Euh, yilif naa sama bànneexu bakkan kon mën naa nekk nit ku baax. Hmm. mais koo xam ne sa bànneexu bakkan ngay jaamu yàq rek ngay def comme ni ma la waxee exemple yi ma daj wax ak yeneen ak yeneen. Hmm. yoo xam ni yàlla daf ko dëxëñ ci biir ci biir euh, weer bi moo tax ku sàggan ba weer bi rëcc la. Mhm. xamal ni mënatoo ko rattrapé te ku la wax di am beneen weer mais mais soxna si. Mhm. am na ñu wooroon daaw euh, ñu weer bi. dëgg la waaw xëy na ñu ngi doon wax ne prochain Ramadan. Mhm. danaa gën a baaxal sama koor. te effectivement vrai koor xam nga mooy ban. mooy mooy chaque koor yow nga sentir ne sa koor bi nga def nii moo ëpp qualité spirituelle que bi nga defoon daaw. boobaa xamal ni kon yaa ngi avancé. terewul nag nga ban ci ànd ak benn ngistal parce que yaa ngi tiit saa su ne. Mm-hmm. est-ce que yàlla nangu na ko. Mm-hmm. kon tout le yaa ngi dans le progrès de la qualité spirituelle. Mm-hmm. mais dugg ci génn dugg génn koo dajeel mbaa yow caa ngi ci koor gi wala ci weer bi. te li bu dul jeex bu xaaj bruit yi caaw yi yooyu yëpp jaru ko fi. ah pour pour xeex bànneexu bakkan la pour un travail de recueillement et de spiritualité. kon loolu lañ soxla ci euh, loolu lañ soxla ci koor. yàlla na n ak jàmm te yàlla nangul ñu jërëjëf